voilà après euh, euh, nag euh, mën nañ wax ni. Mhm. kuréel goo xam ne la. ñu mhm. ngi ko taxawal à la des élections législatives de 2012. ok man 2012 laa ko laa ko laa ko taxawal. Mhm. parce que dama defoon jàngat benn jàngat kan yi. jot na ñun. depuis bi ñu nekkee ndaw ba léegi 1988 nekk ay élèves nekk ci institut ci collège. lañ commencé engagé wu sur le plan politique. di mën a xeex yoo xam ne ci wàllu démocratie. ci wàllu liberté yi. ci wàllu euh, processus démocratique. lépp luñ ci mën a xeex xeex nañ ko jàpp naa ne. à un moment donné euh, euh, dañoo fàtte sunu sunu sunu sunu sunu dëkk dëkkaat yi. dëkk dëkkaat yi doo seetee. collectivité locale yi lañ ko lañ koy nuñ faral ñu koy waxee. dara doxu dara demul. amul ay investiture investissement. amuñ amuñ amuñ ay amuñ ay ay ay ay ay projet de développement taxawuluñ ay kuréel yoo xam ne ndaw yi danañ ci mën a jàpp ko ci ñu ngi koy wax léegi problème emploi mhm. mais amuñ tamit lu ñu wax cadre de vie mhm. donc urbanisation yi doo seetee dëkk yu ba ci dem mhm. da ngay defe ñu nand fay fay nga nekk dëkk yoo ci dem da ngay defe ni fii amul kali doo ko gis dëkk yooyu ñu ne except jotul ñun ñu xalaat benn kuréel boo xam ni ne serait-ce que mu nekk un parti politique di dox ci wàllu développement local développement territorial moo tax ma créé euh, euh, à la suite de ces élections de 2012. Mhm. la coalition euh, le la alliance pour la promotion développement local muy da kuréel boo xam ne dafay dajale. association yi yeeg ñu ndaw yi jigéen ñi mag ñi kuréel yu bëri. Mhm. ñoo xam ne sax dañoo nekkoon ñi société civile ñu indi leen. Mhm. créer ce parti. pour mun a fexe d' abord mouvement la woon à l' époque mhm. pour mun a taxawal benn kuréel bu mag boo xam ni day xeex yëngatu ci wàllu développement mhm. parce que jàpp nañ ni suñ dëkk-dëkkaat yi dañoo xaw a manqué loolu mhm. ñaareel bi bi ñu ko créé euh, en 2012 dem 2017 ñu doog a euh, yaakaar nañ dañ ko war nag def parti politique parce que euh, collectivités locales yi du ñu laaj nguur wala ngay laaj pouvoir li ngay njëkk mooy pouvoir local pouvoir local yi gis pour ñu apporter ñun suñu soutien apporter suñu taxawaay ci collectivités locales yi il faut que ñun ñu bokk ci ñun jiit fa ñu fal jiital leen ci ci dëkkaat yi mm-hmm. moo tax ñu ñu ne kon nañ fexe ba outil ay papier outil mm-hmm. këyit mm-hmm. am récépissé parti politique pour mën a bokk ci ci jongante yi lii moo ko indi ñu taxawal ko bi ñu ko taxawalee sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin euh, gis nañ ci yokkute nit ñi tamit gën nañ def ñu adhéré nit ñi gëm ko jàpp ko xam ni instrument de travail la pour que pour population yi ñu nekk ci école yi nekk ci ci ci ci ci jumaa yi ak jàkka yi. Mhm. nekk ci environnement yi wàllu set setal bi. Mhm. nekk ci wàllu éducation. Mhm. nekk ci wàllu sport culture. lépp loo xam ne yëngatu na di coxal li ñuy wax les compétences transférées au niveau des des des des collectivités locales ñu ngi ci di ci yëngatu. loolu tamit à la suite d'une remarque que nous avons faite nous tous parce que dañu ne. liñ gën a manqué. ci collectivités local dañoo gisoon amoon ay ce qu'on appelle des cadres collectivités locales yi mairie yi communes yi. bëriwul woon ay cadres yu ci nekk. nit ñi dañoo dañoo jàpp rek ni amul solo solo googu buñ ko bañ ba euh, euh, niveau bi dafa xawoon a dafa xawoon a dafa xawoon a ñu ne nañ fexe ba tamit euh, suñ plaidoyer jëm ci wàllu ce ci xeex bi ci gën a am solo pour que compétence yi ñëw ci collectivités locale yi dëkk bu nekk terroir ba doomam yi ñëw fekk si ñu am xam-xam ñëw jàpp ci dëkk ba pour dëkk bu mën a demee parce que président tamit lu mu mën a indi indi acte trois indi communalisation intégrale indi ay réformes sur le plan des des ak créer ay pôle de pôle territoire yi pour des comme des pôles économiques il faut que tamit ñu am ay ndaw ak ay góor ak ay jigéen yoo xam ne am na xam-xam bi pour mën a jàppale président ci ci gox-goxaat yi pour que mu ne mu mën a fësal vision bi nga xam ne moom la am ci wàllu collectivité locale yi d'accord alors ngeen créer ko dem dem ngeen taxawal ko parti mhm. xëy dem daal di jàppale ji président Macky Sall. Mhm. lan moo waral choix bi ngeen seen choix bi ngeen jël porté ko ci président Macky Sall. voilà euh, man euh, euh, choix bi ma def mhm. c'est pour la bonne et simple raison. Mhm. que ni dañu nekkoon man dama nekkoon benn sigil Sénégal. di Moustapha Niass nekkoon sama candidat en deux mille en deux mille douze. bi ñu ñëwee deux mille douze ba ñëw deuxième tour. on a vu comme ni ñu ko waxee woon le candidat le plus placé c'était Macky Sall. pour jàll jàll pour pour mën a gagner le président Abdoulaye Wade. Mhm. lii moo taxoon ñun ñu ne kon nañ dem jàppale président Macky Sall. loolu mooy premier mais bi ñu ko jàppale ba pare tamit dañoo gis ni dafa indi ay programme yoo xam ni mhm. programme yoo xam ni dafay recouper ñun suñu gis-gis ci wàllu développement. Euh, ko ci yoonu yokkute ba ci PIC bi. Mhm. Euh, progression def progression ci PIC bi mais gis nañ ni li ci ëpp solo moom mooy ni ay programme yoo xam dafa recouper. suñu vision ci wàllu développement. parce que ñun dañoo bokk gis-gis. parce que li ci ëpp solo. Hmm. bokkoon na ci euh, comme ni ko Sénégalais yëpp waxee ni hmm. euh, c' est un social. programme Macky Sall c' est social président Macky Sall c' est un social. ci wàllu logement. ci hmm. wàllu couverture maladie universelle ci wàllu. dimbale suñu mbokk yi ci taax taax yi àll yi créer ay bourse sociale mhm. ci wàllu infrastructure le PIDC mhm. dëkk dëkkaat yi nga xam ne amuñu woon ndox amuñu woon courant amuñu woon électricité mhm. ñu fexe ba mu créer programme PIDC boo xam ne leen jàppale jàppale leen ci di créer ci biir ville yi ay Promoville créer ay ay e muy ay ay programme yoo xam ni euh, innovant yoo xam ni day ñëw dimbale collectivités locales yi ci seen liggéey bi ñu def démb ak barki démb ñu ne ñun mais ñun liñ bëgg ci wàllu politique président Macky Sall bi ñu ko def Hmm. kon est-ce que lan mooy lan mooy différence bi pour que ñu ànd ak moom dem jàppale ko hmm. jàppale nguuram taxawal ko gën ko dëgëral pour que hmm. balaa mooy jóge ci réew mi quand même mun a fexe ba Sénégal nekk un pays émergent un pays développé mais surtout au niveau de nos collectivités territoriales alors est-ce que depuis bi ngeen ko tàmbalee jàppale ak léegi yéen a ngi gis seen bopp fi nga xam ne moom mooy au niveau de la région de Kaolack parce que bu fekkente ne tey da ngeen ko gis ndax yéen a bokk peut-être li nga xam ne moom mooy ambition yi ngeen am yéen a mm-hmm. bokk aussi projet yi pour gën a réaliser Sénégal mm-hmm. mm, tey ngeen di yeewoo fu mel ni Kaolack rawatina ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci biir nguur gi tey nekk fa mm-hmm. euh, ndax gis ngeen seen bopp ci ni mu waree ci côté boobu voilà loolu loolu ci ci en tout cas xam nga dañuy wax la gestion de pouvoir boo bokkee ci benn coalition di ci liggéey di ci sonn euh, dañoo bëgg tamit comme ay ndaw lañ ay ñu sommes des jeunes dañu bëgg ñun mettre la main à la pâte. Mhm. bokk ci ñi nga xam ne ñooy doxal réew mi. Mhm. parce que soutien bi baax na ci suñ li ci suñ xam-xam ci suñ taxawaay ci suñ lu ñu wax la mobilisation sociale parce que loolu parti da koy soxla ak coalition mais aussi tamit ce qu'on ce qu'on appelle l'expertise ñu fexe ba ñun ñuy indi suñ xam-xam ak suñ doole ak suñ mën-mën ci biir liggéey bi loolu moom sooxe na li mu sooxee moom mooy ni malheureusement ñun au niveau de de la région bi nga xam ne moom la ma yàlla euh, jaglelee nekk sama fief politique mhm. dañ am nañ bu nekk ma nga mais li ma lay waxee nii ni ma xamee nii ñu am wëllëree noonu laa ko amee ak bépp responsable politique boo xam ne nekk def nga nekk ministre nga nekk directeur général loo mënti nekk mais suñu problème fondamental moom mooy nii amul kenn ci ñoom ku xalaat dara nag ci premier ministre Aminata Touré bi ma jëkkoon nekkal parce que man avant may may may may wax Benno Bokk Yaakaar mhm. man j'ai apporté mon soutien à madame le premier ministre Aminata Touré pendant pendant huit ans ok jàppale ko ci dëkk bi liggéeyam ci léppam d'ailleurs sax loolu mooy expliquer mhm. sama position bi nga xam ne nii nommé na ma ko bi mu nekkee bi mu nekkee conseil économique social pour ma dem jàppale ñu ko foofu mais li am te am ma mooy ni kenn si ñoom xalaatul bés ñoom nga téye sama loxo walla nga gis président Macky Sall ko am nga sa rakk am nga sa euh, euh, sa responsable am nga sa leader politique boo xam ne un jeune boo xam ne engagé à tes côtés jàppale la dippale la alalam fekkeewu ko dooleem fekkeewu ko ay nitam fekkeewu ko mën-mënam fekkeewu ko hmm. ñaqam fekkeewu ko coonoom ci rajo yi ci télévision di la défendre am nga ko président il faut nga recevoir ko kenn xalaatu ko ci. kon président mosul a recevoir. mosuma recevoir te te bizarrement moom mooy li war a ne moom mooy ni li war a lii ci paradoxe moom mooy ñi muy recevoir di jàppale kenn tollu ma ci fii du ci politique bi du ci xam-xam du ci taxawaay du ci jàppale bi du ci soutien bi ma ko indil mais man dama ne comme ñoom noonu lañ ko gisee. Mhm. dañoo jàppale ni ñun jàppale bi. Euh, euh, euh, tey ne Moussa Fall kay duñ ko fexee ba président teg ko loxo wala teg ko mbagg wala jox ay ndombo tànk wala jox def ko nomination naa am que ñun suñu suñu intérêt wala suñuy population wala wala suñu base politique dañ koy menacé politiquement duñ koy gis loolu nag ndokk bi ñu ko xamee ndokk bi ñu ko xamee parce que man damay tiit sax man man ñu dox ci mbedd mi ci Kaolack di dox ci dëkk bi dox ci région bi da ngay gis nit ñu da ñu lay wax ni mere gi mere Macky Sall président Macky Sall ndax le fait mu sagal ñu nekk ci dëkk ba yëpp ba jëli ñoo xam ne sax opposition lañ nekkoon indi leen di leen recevoir di jàppale di leen taxawal loolu moom mooy déception bi ma gën a am nag ci ci ci ci ci ci ci ci ci ànd ak moom 12 ans yi mhm. bien vrai que ni euh, ànd bi tegu moon ko ci ay poste tegu moon ko ci ay mais tegu ma ko woon ci ay ndomba tànk tegu moon ko ci nomination du tànn député tànn ma du tànn ay maire ay sénateur tànn ma euh, euh, ay ay membre collectivité territoriale tànn ma buy tànn ay directeur général tànn ma duy tànn ay conseil tànn ma amul benn tey tànneef wala benn benn benn benn benn benn benn benn benn moment boo xam ni rek ñun Aprodel en tout cas yëg nañ suñu bopp ci loolu ci ci liggéey bi mais nag comme ni ma koy faral di waxee ñun li ñuy intéressé mhm. intéressé woon ñu moom mooy ni population yi nañ nañ gis liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def te man xam naa ni mhm. euh, lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dana mas a xam bu ko xamul dana ko ba a xam te parce que waru waru ko ñàkk xam parce que dara ump ko. mais xam naa ni xam na man apport bi ma ko indil ci dëkk bi. xam na apport bi ma ko indil ci région bi xam na apport bi ma ko indil ci Kaolack te loolu boo ci am solo li ci des nag li ñu faral di wax ne waaxu du waaxu sul yoon du jeexul waaxu sul du jeex. yàlla dimbale ñu la ñu waxoon ak moom sàmm nañ ko man waxoon naa danaa ko jàppale ba deux mille vingt trois deux mille vingt quatre. ba élection ba ñu egsi ci. egsi nañ ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci à la fin de son mandat. wax na carrément du présenté wu léegi dafa naa ni. ku nekk xam na ni man depuis une semaine deux semaines nit ñi xam nañu libre naa parce que ba mu déclaré ba léegi ne bokkatul man libre naa maa ngi contacter nit ñi nag di waxtaan ak nit ñi mhm. seet parce que sama sama sama sama mission ci biir Benno Bokk Yaakaar defe naa mission bu jeex la moom